may présenté wu man la Pape Diop marché Ocass Touba bokk ci commité de pilotage regroupement des opérateurs de Touba ñu koy wax Royet ñi nga xamante ni si ñoom ñoo jëloon initiative jëlee ndigal ci Cheikh mun Mountakha xalif général des Mourides pour initier ñaari amphithéâtre fii ci université bi nga xamante ni si moom la ñuy defaral maam Khadimou Moustapha. dañuy wax ni dañuy defar fii ñaari amphi amphi bu ci nekk dafay nekk cinq 500 place amphi bu ne coût de manœuvre bi dañ ko estimé woon ci quatre cent millions kon ñaari dafay mel ni dafay nekk huit cent millions ci engagement boobu ci lañ nekkoon di ci dox di ci liggéey ba tey jii ñu ak ci pose première pierre bi. démarrage effectif des travaux defe moom mooy nekk li nga xamante ni si moom moo ciy topp parce que comme pose def nañ pose première pierre bi am nañ entreprise boo xamante ni muy Afrique Bat déggoo nañ ak moom ci modalité de travaux yi kon donc dafa li ci des mooy ñu ko dem ci liggéey bi directement. waaw parce que waa Royet dañu nekk benn regroupement boo xamante ni dafa lëkkale commerçant yi nga xamante ni si ñoo nekk ci Touba et environ comme ñun tamit dañu nekk Touba dëkk Touba dëkk ak Serigne Touba lii rek nekkul suñu objectif ndaxte bu lii eggee incha allah dañuy envisager maanaam nekkaat ci yeneen liggéey yoo xamante ni maanaam dañ ciy jot ndigal ci sëñ bi. commerçant yi de dañoo yéex a sóobu ci liggéey bi man duma ma jàpp loolu c'était organisation la ak méthode. parce que tamit lu toy ni ñaari amphi yoo xamante ni 800 millions moo koy defar mënoo tëb tëb benn jour rek du jour au lendemain rek nga taxaw ci c'était une longue processus boo xamante ne ñi doon dox di ci wax xam nga doon dox dans le silence amul woon presse amul dara da ngay jàpp ni peut yi dañoo yeex a jóg wala genre comme ça mais depuis des mois ñi ngi ci noppalu wuñ guddi noppalu wuñ bëccëg ànd ak le président Moussa Mbaye ak membre comité bi fu si nekk dem nañ ci ay réunion dem nañ ci waxtaan ceeg entreprise ñu a entreprise ñu a waxtaanal ba dem ba tànn entreprise bi nga xamante ne moo waral peut-être ñi nga xamante ne dañoo nekk ci biti te comprendre li nekk à ñu jàpp ne dañuy yeex mais yeexuñu woon ci liggéey bi lañ nekkoon ndax loolu lépp ci processus bi la bokkoon waaye ku ñëw ci barab bi tey ci diggante daaw ren da xam ne taalibe Serigne Touba jàmbaar lañ Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ne ci suñ kanam nag moo jiitu amuk dogu xam Serigne Touba lépp lu ko bi jox bu defal ko Serigne Touba nit ñi seenom xel gën a dal seen yaakaar gën a dolli kon nag bañ agsee ci liggéey bi tey yéen ñi nga xam ne yéen la dénk liggéey bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barke Serigne Touba yàlla suñ borom defal leen ci ndimbal defal leen ci tawféex ndax jëf jutal nii kat ko am tawféex ndax Serigne Touba dafa waxoon ne yéen taalibe na ngeen sant yàlla bu baax ndax ëpp leen yéesu leen gi ñu jàpp leen bu ngeen ëppoon damay ñëw ba ba dem ngeen door a ñëw bu ngeen yéesoon itam da ngeen di ñëw ba ba dem ma door ñëw gi ñu jàpp leen itam ndax da jëw leen a man ba noppi ñàkk maa nangul kon yéen itam na sant yàlla ndax bu leen yàlla defalee feex ngeen dëkk ci dëkk bi. ñenn ñi seen ju newoon fi di liggéey Serigne Touba ku mel ne Serigne Khadim mi doon wax léegi wax na wax ju am solo waaye ku xam baayam xam ba séefi ma taxawaay bu la bett ñenn ñi itam àdduna dox bañ toxu si ñëw ci dëkk bi kum ci mën a doon rek tawféex la ju suñu borom defal ndax dëkk ak Serigne Touba kat tawféex la ndax foo xam ne fo ku yaakaar Serigne Touba boo fi bàyyi ko bëggoon ñu yóbbu la fenn furul fii bu suñ borom defalee feex nga dëkk ak sëriñ bi te sëriñ Tuubaa fàggul la ci dëkk bi loo xam ne lépp loo bëgg mu yomb loo jaay mu jar loola la ñu war mooy delloo sëriñ Tuubaa njukkal delloo sëriñ bi njukkal nag dara jiitu ci dara jiituwu ci lii bokkoon ci ay naalam mu fas ko fasoon ko yéene sëriñ Mbàkke Buso bind ko njabootam gi fi ne woon yëpp it fas ko yéene tàmbali tàmbale woon ko Cheikh Abdoul Ahad ba àgg ci Cheikh Maodo taxa suñ boon def mu nara sottee ci loxoom yàlla na àgg ba mu ubbi ko te ni mu ko bëggee rek mu amee noonu kon bu ngeen amee taw feex mu sas leen ci sas wutal nii te yéen ñëw sàkku si ko mu jox leen ci ndigal wax leen kàddu yu soññee yu rëy yam leen wax kon la ci res mooy jom ak yitte te xam naa ne am na ci ndax tàmbaleegu leen te li ngeen dajale mën naa sori ci liggéey bi kon nag rafet nañ jortu ci ne ni ngeen ko tàmbalee ak ni ngeen ko bëggee rek dana demee noonu kon yàlla leen ci yàlla defal ndimbal defal leen ci tawféex defal leen ci barke ba gën a barkeel seen liggéey bi yéen ñëpp ba kenn ku ci lam ci yéene jëf moom kàttu mun ko cee jëf te dara bañ koo gàllankoor te seenum xel dal ci bu baax nag te seen jot rafet ci